الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليه وعلى إمامه وأفضله سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين mbokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëwaat nañ ci jataayu jàng bi ñu tàmm am ak yéen talaata jot waxtu wi ñu ko amee ci téere nit yàlla ku mag kii di ibnu abdaillahi secondary téere bi ñu tuddee al xikam al abaya tey itam ñëw indi xikma bu am solo muy al xikmatu al thalithatu wa situun muy juróom benn fukkeelu xikma ak ñett mu ne xaf من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون xikma bi jàll dañ ci wane woon ne doomu aadama bu fekkee ne xéewal yi ko yàlla yi defal da ko da ko da cee sant yàlla te sant yàlla mooy def ko ci li tax yàlla indi ko fi su boobaa xewal day yokk day yaatu waaye su fekkee ne xewal yi da ko da cee santul yàlla te mooy defu ko fi taxoon yàlla bind ko xewal yi day dem coori day dem loolu na dafa laaj ñu ñu indiwaat loolu benn loi historique la indi beneen di mottali déggin boobu parce que tam mën naa demee neneen mu bañ nga mu ne xaf min wujudi ihsaanika ilayk su fekkee yàlla daa continuer di la teral te yow nga dëkk ci mooy ko tiital ci sa bopp ne boo demee daf laa bëgg yolla nga boobu laa bëgg a def mooy yoll mooy naxaanteeg dara ba ba mu dem foo ba mu dem ay baat yoo xam ne ci alquran la sanastadrijuhum min haythu laa ya'lamuun yàlla ne danaa leen istidraaj danaa leen yoll ngar te ba ñu fi ma fi ma bëggoon لما نبه ابن عطاء إليه في الحكمة السابقة إلى السنة التي يأخذ بها عباده والتي تتلخص في أن الحصن الذي يحفظ النعم ويبقيها في كنف صاحبها هو شكر الله عليها وأن الإعراض عن شكره عز وجل هو السبب الأول لزوالها استدرك في هذه الحكمة الثانية منبها إلى سنة أخرى يعامل الله بها طائفة من عباده ألا وهي الاستدراج وقد عرفت معنى الاستدراج في شرح حكمة السابق mu nekk ci xikma bi jàll wane woon nañ ci benn loi historique te mooy nu nit ki di gën a jëfandikoo xéwal yi ko yàlla jox ci li tax yàlla bind ko xéwal yi di yokk waaye nu mu gën a jëfandikoo xéewal yooyu ci li taxuloon yàlla bind ko xéewal yi ñu wàññeeku wala mu ñàkk mu ne soo gisee nag waaye soo xam dafa yàlla da koo xéewal ba pare mu koy moy te xéewal yi di yokk kooku war naa tiit na léegi yàlla dafa jëflante moom ci beneen loi historique bu bokk nag loi bi ñu ko wax mooy da ko dugal jaamam ñi nga xam ne dañoo dañoo fipp ne foog ñu bon daf leen yombal man googu ci dolli xéwal yu leen loolu moo tudd istidraaj mu ne fa hadihi alhikmatu allati yutammimu biha ibnu ataillahi maana alladi saqa fi kalami sabiq taqa mawqi aljawab an suali man yaqul fa ha ana muridun an alshukri alladi tatahaddas anhu wa ta'mur bihi والنعم التي أتمتع بها موفورة وكثيرة fii rusuuxin wa tazaayun mu ne xikma bi dafa ñëw di ton waaye soo xam ne bi mu déggee keroog ñu wax ne noo gën a sant yàlla sa xéwal di gën a yokk noo ko gën a ñàkk sante sa xéwal di wàññi mu ne man de damay mooy yàlla waaye sama xéwal yaa ngi di yokk mu ne xikma bi dafa ñëw di ko tontu naan أن هذا الواقع الذي تصفه من استمرار إحسان الله إليك هو استمرار مع استمرار إساءتك إليه ليس إلا مظهرا لسنة ليس إلا مظهرا لسنة أخرى من سنن الله في عباده ألا وهي سنة الاستدراج mu ne waaj li ngay wax ni di wane ne yow de yaa ngi mooy yàlla waaye sa xéwal yaa ngi yokk al istidraj te mooy beneen xeetu jëflante boo xam ne yàlla da koy jëflante ak yenn jaamu yi waxoon nañ keroog ne jaamu yi ñu ci jëflante mooy ñu rëy ñu rëy soo demee surtu xalam ñooñu la yàlla wax fadar nii fadar nii wa man yukadibu bi hada al hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin yonent bi salaa sam yàlla na ko bàyyi maag bàyyi maag ñiy rek bàyyi maag ñiy weddi les lois historiques dama leen di yollangal dama leen di yollangal ba ñu jëm fi ma bëggoon ñu jëm fa ndax ñu yàlloo mbugal gi ma leen war a teg wa umli lahum maa leen may ñu toog fi di ma mooy ba pare may yokk seen xéwal ñuy noos waaye li war a xam mooy inna kaydi matin mooy ma bëgg a jàpp jàpp man ku ma bëgg a jàpp doo rëcc wa qad alimta mimma ذكرته لك في شرح الحكمة السابقة أن أن أن الاستدراج مظهر لسخط الله waxoon nañ ne istidraaj day feeñal merum yàlla ci ñu rëy ñi nga xam ne faalewuñ yàlla faalewuñ ay ndigalam dañoo waaye du ko teg ñi nga xam ne dañoo feebar bañ def li seen bakkan bi digle ñaar ñaar mooy kat yàlla ñaar rek dafa am ñoo xam ne faiblesse moo tax ñu seen bakkan yi mooy yàlla di néewu leen waaye nag dañoo ñàkk solo ba nga xam ne seen bakkan yi mënul mënuñ seen bakkan yi dara ñoo yàlla du leen def istidraaj ñooñu yàlla day jël xéwal bi rek xéwal gi ñu doon noos rek ñu bàyyi noos ñoo xam ne ñoom dañoo rëy ñoom dañoo jàpp ne ñoom mënal nañ seen bopp mën nañ seen bopp te li ñuy def ñoo ko tey ñoo ko tànn dañoo def ne seen góor la alal bi am ñoo ko seen pexe ak seen muus moo tax ñu am ko su dee loolu la ci ngay gisee ne xekma bi dafa ñëw di mottali ko ne xekma bi njàng talaata jàng fekkee ne doomu aadama bi dafa sant yàlla ci bi da koy yokk waaye bu ci sant yàlla da koy jël su ko defee nag tey xikma bi ñëw di wane ne am na ñeneen ñoo xam ne du ñu sant yàlla te yàlla du jël xéwal yi waaye day fekk ñoom ñu bokk ci kuréel bu rëy bi kuréel bi nga xam ne faalewu yàlla sóoraale wu ko dañoo jàpp ne ñoo man seen ñu man seen bopp lañ wala ñu ñoo fi seen bopp léegi nag tiit gi ngay tiit ci sa bopp soo dee mooy yàlla ba pare te yàlla nanguwul xéewal yi la jox te fekk bokkuloo ci ñu rëy nga ragal a bokk ci ñu rëy ragal boobu ngay tiit tiitaange boobu ngay tiita am na njëriñ ndax daf lay daal taxa def taxaw seet seet sa bopp ba xam lu tax xéewal yi yokk te yow yaa ngi mooy yàlla su ko defee loolu dañ la poussé commencé waat di vérifier ndax yow sant nga yàlla sant gi mu laaj ci xéwal yi la jox su fekkee gis nga ne sant bi des na nga gën a góorgóorlu ci sant yàlla kon tiitaange bi doomu aadama biy tiit ci xéwal yu yokk yi ànd ak muy mooy yàlla amal na ko njëriñ ndax dana tax mu mu def taxaw seetlu ci ay mbiram defaat gam-gam diggante ni muy sante yàlla ak xéwal yi ko yàlla defaat gam gam ne diggal xéewal yi ko yàlla jox ak fi mu koy def ndax fi mu koy def dëgg foofu moo taxoon yàlla bind ko wala feneen la koy dugal su ko defee loolu kon dana ko amal njëriñ moo tax doomu aadama xelam du dal mukk xelam du dal mukk fu mu war nay tii ci boppam war na ñaaw njort ci boppam ak lu situation mën a ci def lu baax lu mu góorgóorlu góorgóorlu ci bay sa war day ñaaw njort ci boppam ndax amul ci kenn koo xam ne sag ragal yàlla wala sag mat jege na matu sidna Omar radiyallahu taala waaye gis nga sidna Omar radiyallahu taala fu mu masa xéewal masa beese rek yokk tiitaange yokk tiitaange ci ragal rek di yàlla def ko bëgg a def istidraaj ndax xam gi mu xamoon ne ñi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yàlla seen mooy yàlla boobu yàlla du tax dagg xéwal yi noonu noonu defal da koy yokk loolu taxawaay sahaaba boobu mën nañ koo jàngee ci téere bi ibnu kasir bind tuddee ko al bidaaya wa nihaaya ak téere bi ibnu saad bind fi tabaqaat ñu ne sidna Omar radiyallahu taala anhu keroog bi jullit yi ubbee Perse dañ faa jëlee am koom mu bëree bëri wuru sax xaal ki jaam ak alal bu dul si naamat bi jullit yi ñëwee ak xewal yu bëri yooyu moom bégul dafa tiit bégul ci xewal yi mais daf cee rek yàlla boole ko ci kuréel bii nga xam ne daf leen mu ne kalla walladi nafsi bi yadi maa xabasa allahu hada an nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa an abi bakr iradata alcharri lahuma wa aataahu omar iradata alxayri lahuma mu ne maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxo la nekk ne yàlla xañ ji mu xañ yonent bi mu dund ba ubbi pes alal ju bëri ji dugg ci lislaam ci ay loxo xañ ko si naabar bakar mi ko wuutu woon gannaaw moom du xeeb leen a tax wala ñàkk leen a yéen a tax man nii mu amal xéwal yi sama jamono du yéene ma jàmm tax kon foog ma xam est que dëgg dëgg dëgg dëgg man xam ne dañ may teral yàlla def maa teral wala daf may istidraay donc loolu lañ wax ne kon si naamar euh, foofu boobu situation la nekkoon kon ak jullit fu mu toll war na di bàyyi xel boppam ak situation bi bu nekk di xool xéewal yi ko yàlla defal nan la koy comprendre ibtilaala wala istidraaj wala ikraam ndax yàlla daf lay wala da lay loolu moom nit ñi nga xam ne dañoo dañoo xeex ak seen bakkan ba man ci dara dem ba am ak leer seen xol ñooñu comportement bu mel ni Sidna bi boobu la ñuy am ولكن العامة الذين هم من أمثالنا بوسعهم أن يتخذوا لأنفسهم مقياسا يميز لهم النعم التي تفيد إليه من باب الإكرام الإلهي عن النعم التي تقبل تقبل إليهم من باب الابتلاء والاستباء ñun ci des na ñun ñu ne ñun ñu ñun ñu ordinaire ñun itam war nañoo am nattukaay bu ñuy xamee xéewal yi ñu yàlla defal ndax teral ñoo tax wala bëgg ñoo fiir a tax wa hada al miqyas fi aqidati wa suluk nattukaay bi mooy pas-pas bi nga am yow pas-pas bi nit ki am ci lay natte ba xam xéwal yi tax wala bëgg koo dumaa tax bi mu ne fa man kaana yatalaqa an-ni'am inda iqbaliha ilayhi ala annaha wafidatun ilayhi min allah la yuxtar fi la yaxtur fi baalihi al-wasa'id wal-asbab wala yuqimu laha waznan wala yara laha ahamiyatan wa kana taamuluha ma'aha xaadi'an li shar'ihi illahi wa ahkamihi yujanniduha li asbabi al-qurbi minhu wa yabta'id an majalis saxatihi فإن من وسعه أن يعلم أن النعم التي تأتيه من الله تعالى إنما هي بريد إحسان ودليل إكرام mu ne waaye si nga xam ne xéewal yi ko yàlla jox yëg-yëg bi mu ci am mooy lii ci yàlla dong la jóge ak ku mën a jaar ci say loxo itam dafa jaar ci sa loxo waaye yàlla dong moo ma ko jox man mii tam aw ma benn mbir ci xéwal bu jox yàllaa dogal rek ci baaxam mu bëgg maa tàgg ba pare teraanga gi tam mu fexe ba ni mu ñëwee ci loxom sariya nangu ko ni teraanga gi ñëwee ci loxom sariya nanguwul doo fi nekk rek naan yàllaa ma teral du ubbi wax ne jaamur yi di jël seen xaalis di sàcc ak di war ba pare tudde bu ko tudde yàlla xee eh, tëral da ngay nax sa bopp kon da ngay fas xéewal ku ma am fa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp lu ma am ci xéewal ci yàlla dong la jóge ndax yàlla rek ma ko mën a jox ak ku a jaaj say loxo waaye nag doo nangu bu accès ci yow ci yoon woo xam ne sariya nangu doo nangoo béy bi doo gàtt doo alal bi bu duggee sa loxo itam dañ koy dépensé ci charia wax ne foofu lañ ko war a dépensé alal jooju mën ngaa waat ci yàlla ne teral laa tax yàlla jox la dara ndax alal ji dugg na ci sa loxo ci yoonu charia nag ba pare pas-pas bi nga am gisin bi nga am gisin bu baax te mooy dangaa delloo mbàtt bi kenn daal dangaa delloo jukkal ki koy yàlloo mooy kenn rek mën a teralaate mooy borom bi tabaraka wa taala waaye su fekkee alal ji dugg sa la teraanga jàpp ne sa góor a tax wala baaxu diw wala baaxu diw sa baaxu maam yi wala sa baaxu nijaay wala ñoo tax ba pare loo ci am lu la neex lu koy jëfe doo seet doo seet yoon mu la doo boo koy amee li li ngay bañ daal mooy ñàkk comme ni ko olof yi wax ñàkk da ngay ah, daganale araam ni juum daganal garaawe noonu la juum araamal garaawe boo wut sax juum araamal araamal boo wut moo gën a garaaw juum daganal kon waaye mbir moo xam ne léegi nga dégg waaye si nekk naan damaa bëgg a teral sama wóor yi damaa bëgg a yóbbu sama yaay ne moom jàpp ne alal su xasee soo ko xasee am lu la neex mën nga ci jàmm yàlla te xamul ne alal bi tagatul kenn jàmm yàlla yonent bi du lëw du du dem màkk du saraxe du jeex boo ci saraxee kenn du ko nangu alal du lëw du jaamu yàlla bëgg a tere say wéyjur bëgg leen yóbbu màkk da ngay ju lew waaw si gaa yi boo yóbboo alal ju lew soo nee labbayka yàlla ne laa labbayka soo nee labbayka yàlla ne da fen nga wuloo fi ngir man parce que ñëw fi ngir man jaruloon ngay tappale ba ñëw fi waaw ñëw fi ngir man jaruloon ngay sàcc pour ngir man fi waaw amuloo alal bi dajal aj waragula kon boo fi boo lijjantee ba ñëw fi ñëw man taxul am na coono bu nit ñiy teg ci dem mag lu nañu dugg ci fu nañu ñaaj ku nañu seet la la koy la koy fii tekki mooy yàlla tax dafa am leneen luñ bëgg rek waaye bu yàlla tax doo sonn ci dem mag yow bu matee boo ko amee dem boo ko amul bàyyi loolu nag ni nga xamee ne réew euh, nit individu jëmm yi ni nga xamee ne jëmm yi suñu réyee yàlla daf leen di daf leen di fiire da leen di def istidraaj da leen di yollangaan ngir ñu yokk seen bakkaar état yi tam noonu société tam bépp société boo xam ne société bu rëy mooy société boo xam ne dafa jàpp ne yoonu yàlla nekkul ci ni muy tëralee comme Sénégal léegi dawla mutakabbira parce que dawla ak dawlatul almaniya hiya dawlatu mutakabbira loolu mooy rëy bokkul ak dawla al asiya réew dina mooy bu fekkee dafa jàpp ne yàlla moo war a tëral ni muy doxe ba pare mu mooy yàlla ca mu defe ko lu bokk la nda ko yàlla waxe gannaaw bi mu xamee ne doxale ko nii yàlla wax a gën kooku doomu aase doomu réew moom réew mi day mooy yàlla dañ koy jàpp dañ koy jëfandikoo jëfandikoo moom comme ni ñuy jëfandikoo individu bi nga xam ne dafa gëm yàlla ba pare di ko moy ñaari xéwal dañ koy nangu rek mu ko def ko sécheresse nawet yàq pour mu dellu si mais bu dee dëw la mu tëkkat nga xam ne léegi réew mi dafa jàpp ne yoonam nekku ci yëfu yàlla yàlla mënu la régler réew mi su boobaa dañ koy istidraj yàlla nga wax sourate an'am fataxna abwaaba kulli shay am na façon rëy goo xam ne ca état tol xéwal xéwal fu ne xéwal bi pétrole beeg gaz beeg fatahna alayhim abwaaba kulli kulli shay abwaaba lépp lépp lu ñu dugal lu réew mi tàmbali rek mu am mu baax mu wax ca sooratul Hijr darhum yaakuluun état yi nga xam ne dañoo rëy bàyyi leen ñuy noos wa yatamatta'uun ñuy bànneexu wa yulhimul amal fa sawfa ya'lamuun waaye loolu du continuer loolu du continuer dañ jékki-jékki rek benn crise bu mag ñëw. Union soviétique kenn mës ta jàpp ne dana daal kenn ku bi nga xam ne dundam gi yëpp xeexe Union soviétique la ko doon bi muy daal dafa bees lu tax parce que ba réew ba condition daal bu jotee ba mu àggee ci ci ci ci yàlla faw gën a kawe dafay daal xam nga boo yéeg ci garab te te a bàyyi jël bi da lay bett parce que da ngay dem ba ci njobaxte la nga nga ci car bu nooy mu fàq ànd yow noo gën a yéegi jël bi di gën a métti parce que jël bu la gën a sori kaw moo la gën a métti comme communisme ñoo gënoon a weddi yàlla capitalisme ñoom ñaar ñëpp weddi yàlla mais fi ci communisme ak capitalisme ak bu parce que am na ay benn benn du gëm yàlla ñoom sax eh, gis nga président état yi suñu sax buy buy ci bible lay waat kattaasi am na gëm nu ñu gëmee yàlla gi gaa wér gëm gëminu yàlla ba moo wérul waaye communiste ñoom dañ jàpp yàlla amul nit ñi ñoo ko créé Marx loola daal man Marx dafa wax ne non seulement nit ñi dañoo war a jol delloo njukkal yàlla waaye yàlla ñi ñoo ko amal te amul amal ko bari ko màggal di ko teral te kon moo leen amal njukkal donc ñoom ñoom yàlla amul comme yàlla am nag foofu mooy mooy mooy sommet wet yàlla ndax mën ngaa wet yàlla ci dëkk ci dëkkal ko fu mu dëkku loolu la capitaliste def capitaliste dañoo gëm yàlla dëkkal ko fu mu dëkku façon wet yàlla mais ne yàlla amul nag biñu bar moo gën a fort moo tax bi daanu jotee ñu gën a fort duñ يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد mu wane ne réew yu réewu adduna bi réewu capitalisme yi seen trangin bëri bu mu la jaaxal ab diir bu tuuti la rek ñu daal seulement tundu état dafa gën a yéex ni société ay at yu bëri la soxla pour soppeeku nit ki moom at yu daw lay at juróom ñaar fukki at juróom ñett téeméer at rek koo ci gisee ci boo ko gisee te xamal ko doon ko xamee waaye bu dee état bu dee société société ab yu soppeekum dafay yéex dafay yéex parce que dundu société moo parce que Sénégal bi comme ce sont les ñaata génération ñoo faat kon soppeeku Sénégal boo yaakaar ne sax doo gis doo gis yàlla nag yonent bi bu jàpp ne état yi euh, ni mel nii. continuer mi ngi soppeeku soppeeku moo moo yéex ba doo ko gis waaye sikki na ku ci ne day daal dafay daal te loolu ku gis crise bi am 2008 euh, ci wàllu finance nga xam ne day daal léegi ñu ngi jàppandu ci finance sànni léegi ñoom ñëpp jug nañ dem jàngi finance sànni non parce que ci yàlla jóge waaye dañ ko def parce technique bi effectivement dafa prouvé ne mën naa mën naa mën naa mën naa mën dox ci tas kon loolu ñu bàyyi ci xel baax a baax moo gën nekk fi rek di ñeetaate parce que mbir boo xamul la ko la da ngay defe ne lu yàgg la moo tax loolu moo daan dal état yu yàgg yëpp parce que soo demee sooratu qasas yàlla àddina ay nit ñi yaa layta lana misla ma utiya qaaruna innahu la du xadin azim qaarun ba mu yëkk am alal am na ay nit yoo xam dañu defoon alal day sax am na sax jàpp ne mënatu ñàkkati bañ naan ay waay may li nga may aaroon waaye fan la mujj fa xasafnaa bihi wa bidaarihi arba dafa jékki-jékki rek la ñu amul lépp xëy xëy dàq ku yàkkam bi du ko firaaw na jàpp la même chose firaaw na meloon na loo xam kenn defoon na ne duutu daanooti duutu fi jógee moo tax maa kaana yasma'u firawna wa qawmuhu wa maa kaanu ya'rishun la Alxuraan wax firawna ak dooleen gan yëpp du tax mu sax ndax lenn lu nekk dafa am bi moo tax yàlla wax falammaa nasuu maa zukkiru bi mooy aaya bi jàngoon leen ci ginnaaw état yi bu demee ba wedd yàlla te wedd yàlla boobu rëy tax su boobaa du ñu fatahna abwaaba kulli shay fatahna alayhim abwaaba kulli shay hatta ida farihu bañ demee ba defee ne c'est fini léegi mënatuñoo ñàkk mënatuñoo néew doole ñooy bàyyi àdduna bi comme ni Amérique mel farihu bima uutu axadnaahum baxtatan fa ida hum mublisun kon loolu loi historique la euh, moo tax arab yi dañuy wax ne laa yasqutu ahadun min fawqi xasin daanu daanu basan méttu daanu daanu basan méttu basan boo ci daan moo joxe ak bërigo def ci beneen bool waaye daanu daanu garab bu métti donc ku la gën a kawe fu mu nekk moo la gën a métti daan daan loolu loolu la arab bi doon lépp <coughs> ah. su ko defee am na benn am na laaj bi غير أن السؤال الذي يتطارحه كثير من الناس يوم يدور بحثا عن الحكمة في تسلط دول البغي والعتوم على المسلمين وتحكمهم به وتمكنهم منه ولعل أحدهم يقول ولعل أحدهم يقول فإن كانت سنة الله تقضي بأن تستدرج هذه الدول إلى مزيد من التمتع بالنعم والمبتغيات ريثما يحين ميعاد هلك أيستلزم ذلك أن يعلو سلطانهم على المسلمين وأن يتحكموا بهم ويستمرقوا خيراتهم ويستلبوا حقوقهم mu ne su fekkee loi historique dafa wax ne yàlla day def istidraaj état yi nga xam ne dañ ko wet te mooy dolli leen développement est-ce que loolu day dugalaale ne ñoom dañoo war a dominer waale réew di jël seen alal yi la leen toroxal est que loolu tam ci loi bi la bokk est-ce que est-ce que dafa bokk ci loi yi loi historique bi nga xam ne moo wax bu bu ab état wettee yàlla yàlla day dolli da koy yokk day yokk développement est-ce que loolu day dugalaale état boobu dafa war ko da cee war a boole waale ñëw ci jullit bi dominer leen toroxal leen jël seen yàlla ندرب الجواب أن المسلمين اليوم ليسوا هم المسلمين الذي الذين وعدهم الله في كتابه النصر والذي قال عنه mu ne jullitu tey ba li ma njëkk a leeral mooy jullitu tey yi nuroowul ak jullitu démb yi yàlla waxoon na dana leen jàppale mu mu mu teel a leeral jullitu tey ñun ñii tey nuroo wu ñu jul di yàlla waxoon ne dana leen jàppale yi waxoon ci suuratu Gaafir inna la nansuru rusulana walladina amanu fi lxayaati dunya wa yawma yaqumu ashhad yàlla waxoon na ne dana jàppale jullit yi ci àdduna ba kenn du leen mën a dominer jàppale leen alaaxira ci dugal leen àjjana yàlla moo waxoon ne la nansuranna wala lan la nansuru ak du seen ak baax nansuru danaa jàppale samay yonent ak ñi leen gëm adduna ju tedd ju neex waaye bu yomal xaamee tam mu dugg àjjana yamu ci yamu ci kon kon jullit yi kenn waru leen a dugg loolu loi bi dugg laa lewul jullit bi bi ci des mooy lan nga nuhli kanna zalimin wala nuskinannakum al arda min baadi yàlla ne danaa toroxal dinaa leen toroxal ba pare may leen ngeen dominer adduna bi may leen ngeen jullit bi ngeen dominer adduna kon jullit ñooñu du ñun ndax ñun contraire bi moo am mu waxaat sourate Nuur wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa min qablihim man maa digoon ñi gëm yàlla di def lu baax ne danaa leen jox suuf si ñu tonn ko ni ni ñu doon woon ñu ko jiitu ni ko defaloo woon ñu ko jiitu ñu leen jiitu kon fii lu jar taxaw la pour xam ne euh, ñun kon suñu problème mooy ñàkk a mat ay jullit suñu matul ay jullit nag amuñu droit revendiquer benn benn privilège bu yàlla waxoon na dana ko defal jullit ndax su boobaa du yàlla moo waxul moo dëpp moo moo moo deful la waxoon waaye ñun ñoo melut na ñam waxoon waaw ah, ah, waaw ñun ñoo melut na ñam waxoon kon amuñu droit di jéem a di jéem a toppatoo dara yàlla naan ko dégg nangam naan parce que dafa am ñu waxoon ne ñoom la ko defal te ñun melut noonu wa kadalika nuwalli baada zalimina baada bima kanu yasfun waxoon na itam ne yàlla waxoon na itam ne tooñkat yi itam bu fekkee julli di mëtu loolu mën nañ ko dégg ci aay boobu ah. yonent bi salaa salaam waxoon na lu mel noonu ida tabaayaatum bil iinati wa axastum adnaab al baqari wa raditum bil zarci wa taraktum al jihaad sallallahu allahu alaykum zullan laa yanziu laa yanziu xatta tarjiu ila diinikum xadis bi xadis bu dawér Abu Dawud bind na ko na xadis wér na Abdullah ibn Umar imam Ahmad tam bind na ko mu ne bu ngeen fi nekkee di noos rek di wut lu ngeen am di tabax ay kër di bay ay tool fàtte yàlla ak jihaad danaa bàyyi seeni noon ñëw dominer leen te domination bu du jóg du day mukk fekk delluwaat nekkaat ci fekk delluwaat kon suñu néew doole rek day continuer ba ba ñu nekkaat ay jullit rek moo xam ne ñun pare nañu nekkaat ay jullit tam déet waaw ñun ñoo ñun suñ ñoo moom suñu bopp daal loolu ñun nous sommes libres suñu neexee ñu continuer ni ñu mel nii rek ku ñëw toroxal ah ñu mel nii ku ñëw toroxal rek waaw bu ñu neexee ñu continuer comme ça bu fekkee tra dund ci toroxtaane bi moo ñu gënal suñ ci bëggee génn nag ñu dem nekk jullit parce que génn ci moom benn charte dong la mooy nekkaat jullit loolu leen wax leen wax dëgg la kon mbir mi nekkul ci tudd rek waaye dañ koy nekk hmm. Sidna Omar bi mu yónnee xare bi jëmoon ba mu jëm bi jëmoon euh, Perse te xare boobu ki ko jiite woon mooy saabu ummi saad dina amar dafa wax ak moom bi mu demee ba armée bi taxaw ñu war a dem ñëpp ñëw li ñu war a yor ci ay fas ak ngànnaay yëpp pare ba départ rek des sidna amar dafa xutba ne ko yaa saad yaa saad abna saad laa yagurannaka an yuqaala anka xaalu rasulillah ñëpp xam nañ ne ni jaay na ci yéen sallallahu alayhi wa waaye nekk gi nga nekk ni ci yéen bi jëw jëriñu dara fee nga jël lu tax fa inna allaha la yamhu suu bi suu yàlla du dundee lu bon lu bon ni moom te fa nga jëm bon a fa nekk soo bonee doo yàlla du dindee lu bon lu bon ni moom te fi nga jëm bon a fa nekk walakinahu yamhu suu'a bil hasan yàlla bu bëggee dindi lu bon lu baax la koy dindee amuruk wa man maak an takunu ashadda ihtirasan minkum min aduwikum li ma lay digal yaa ñi nga àndal mooy ngeen def lu ngeen man ci bàyyi bàkkaar lu ëpp lu ko yéefar bi bàyyi li ma lay digal yaa ñi nga àndal mooy ngeen def lu ngeen man ci bañ a def bay nuróog noon bi ndax fa inna dunuba al jaysh axwafu alayhim min aduwi armée ay bakkaaram a gën a garaaw bi jullit bi ay bakkaaram gën a garaaw ci al muslimin ولينظر المسلمون بمعصية عدوهم لله soo gisee yàlla di jàppale jullit ñi ci yëfër yi mooy li yëfër yi di mooy yàlla te ñoom mooy yàlla yëfër yi dañoo mooy yàlla te ñoom mooy yàlla ñu gënal yàlla ci yëfër yi walaw laa daalik lam takun lana quwwatun bi su fekkee gënuñu leen waruñu leen a mag ndax ëpp ñu leen ëpp ñu leen armée gënuñu leen ñekk suñ leen gënu ci jikko waruñ leen a man ndax ëpp ñu leen ëpp ñu leen a arm gënu leen ne li anna adadana laysa ka adadi au contraire ñun suñu lim du dara par rapport ak seen lim ñoom wa iddatuna laysat ka iddatim suñu armement bi du dara par rapport ak seen armement ñoom fa in istawayna fi lmaasiya kaana lahum alfadlu alayna fi lquwwati su fekkee ñun ñaar ñoo yem ci kanamu yàlla ndax ñun ñëpp ay moykat yàlla ñu man ñu parce que ñoo ñu ëpp lu jumtukaay xeex ñoo ñu ëpp lim ëpp ñu jumtukaay xeex c'est wa in la wa in la nunsar alayhim bi fadlina lan naglibahum bi quwatina mu ne suñu leen gañewul ndax li ñu yàlla jàppale ndax liñ leen gën a jub ñu làpp ñu ndax ñoo ñoo ma yem te leen gën a néew doole loolu wax dafa leer nañ dafa leer nañ mu ne wala taqulu inna aduwana charrun minna falan yusallit alayna fa rubba qawmin sallat alayhi man huwa charrun minhu kama sallata ala bani israil bi xut nasar fa jaasoo xilaal diyaar bu fi nekk naan suñu bonee kon yàlla xam ngeen ne buxtu nasara dafa notoon Israël te waaye ba Israël bonee dafa ñëw gañe leen kon bu yéen li leen jé li leen ci génne mooy bañ a bon rek <laughs> li leen ci génne mooy bañ a bon rek waaye naan kéema gën a bon bët bu set yàlla bàyyi ku la gën a bon mu làq ndax li nga bon am na sax lu ñuy wax naa xadis la ñu ne te xadis mooy azzalimu sawtullahi fi xalqi sawtullahi fii fii xalqihi waaw su ko defee yuadibu bihi summa yantaqimu bi nee na bandi bandi dictateur yi ngu buur yu bon ñooy yaru yàlla ci kaw suuf yar bi lay yaree jaamam ñu ndaw ñu ba pare nag ñëw nag door ko yar moom door ko làq donc loolu ñu bàyyi ko xel bu baax loolu moo tax il faut doomu aadama bi def lu mu man ci bañ def bakkaar su bëggee am dimbali yàlla nekk jullit doom kon du tax am dimbali yàlla mais da ngay nekk jullit ba pare góor-góorlu ci bañ a def bakkaar am na benn buur boo xam ne moom moo créé dawla Osman ñu ngi koy tuddee al Osman ibnu Affan dafa xeexeex bu yàgg-yàgg dugal Europe yëpp ci l'islam moom moo defar état turki yi am na jamono yoo xam ñoo ñoo nekkoon xalifa moom di islam yàgg na bi mu demee bay faatu dafa woo doom di ko dégg mu ne doom ji xuf min ni al ibra laqad xadartu ila hadihi al bilad wa ana أعطاني الله هذه النعم الجليلة فالزم مسلكي واحذر حضوري والحذوي واعمل على تعزيز هذا الدين المحمدي وتوقير أهله فذلك هو واجب الملوك في الأرض mu ne doom ji bi may ñëw tur xorondoo moom moo ëppoon doole xorondoo moom moo ëppoon doole par rapport ak état bi ma doon ubbi si bi ma duggee rek ak yéen a ci sell may ma doole ba ma def li ma bëggoon def yëpp xéwal yi yëpp xéw léegi nag booy boo nga jaar fu ma jaaroon rek te mooy woyof ak moytu li ma moytu woon taxaw temm nag ci taxawal diine yoon ci al muhammad waaye nga wet nag jullit ñi loolu mooy waru garu képp ku jiite réew ci ak jot rawatina réewul islam kon gis ngeen mbokk yi jullit ne xikma bi tam xikma bu ama am solo la dafa ñëw di mottali dégg ñu xikma biñ jàngoon talaata te mooy wane woon ne doomu aadama bu ko yàlla xéewalee da ko war a sant waxoon nañ lan mooy sant yàlla sant yàlla ci tënk mooy xéewal bu la yàlla jox nga jëfandikoo ko ci li taxoon mu indi la fi ñàkk sant yàlla mooy xewal bu la yàlla jox nga jëfandikoo ko feneen bu taxul doon yàlla indi la fi mu waxoon ci xikma bi ne doomu aadama bi bu fekkee ne dafa dafa sant yàlla day yokk xewal yi waaye su santul yàlla yàlla day nangu xewal yooyu waaye kooku du ñëpp du ñu santul yàlla ñëpp la yàlla nangu ki muy nangu xewal bu ko santul mooy ki nga xam ne daa gëm yàlla ba pare di ko moy daa yàlla ba pare di ko booy amul problème pas-pas mais problème bu jëf jëf jikko la am kooku yàlla day nangu xéwal ndax mu fàttali ko boppam ndax mu fàttali ko li ko manqué bu def am na koo xam ne nag moom dafa dafa santul yàlla ndax rëy ndax dafa jàpp ne li mu yor yàlla jox kon du ko sant bu fekkee ne yàlla jox la dafa jàpp ne li am yàlla ko ngóoraama ko ko may ak i pexe kooku mënut a sant yàlla kooku nag moom yàlla da koy yokk rek da koy yokk ndax ay bakkaaram yokk loolu ci la ñëwee ci bii di wax ne kon doomu aadama même yow mi nga xam ne sa pas-pas baax na waaye yaa ngi mooy yàlla yow wóor la ne yaa ngi mooy yàlla soo soo yëgee si xéwal di yokk war ngaa tiit ngir bañ a bokk ci kuréel ba ndax diggante bi dafa sew diggante bi daa sew. soo ko defee loolu li muy tekki mooy war ngaa vérifier waat sa ngëm ba wóor la ne li nga sa mooy yàlla ci càggante doo nga tax ak ñàkk fayda waaye xam nga ne yàlla moo moo yàlla te xam nga ne li nga am yëpp moo la ko jox loolu la la la la la ibn ataay su ko defee loolu li mu lay boobu moo lay dellu si toujours ngay defaat bilan di mu wan ne nag léegi soo bëggee xam ndax sa yokkute xéwal bi kara teraanga la wala mbugal la da xool pas-pas bi nga am ci teraanga ji su fekkee pas-pas bi nga am ci teraanga ji mooy wóor na la yàlla la ko amuloo benn sikk sakk ne yàlla dong la ko mën a jox moo la ko jox ak kum ko mën a jaaral ci loxo ba pare bëgg mu duggee sa loxo nu n'importe quoi da ngay bëgg mu duggee sa loxo nu charia nangu bu duggee sa loxo ba pare nga fas yéene di ko dépensé fu charia nangu su boobaa na la wóor péng ne teraanga ji nga am teraanga la waaye du du mbugal du su fekkee nag sa passeport boobu dangaa jàpp ne sa ngóoraa la may li nga am wala mbaaxu diw moo tax am ko te alal li ci bon mooy mooy ñàkk ko waaye soo ko amee rek soo ko amee da mën a baax commencé naan da ngay dem ci di fa joxe ay basin di fa ay sajaada di fa maye ay rajo di yóbbu yóbbu sa payi makkaat yóbbu sa yee bakka ci alal joo xam ne dagalu su boobaa da xam ne alal di nga yor du alalu du teraanga waaye mbugal la loolu kon mooy xikma bi xikma bu am solo ñu bàyyi ko xel surtout jamono ji ñu toll nii tembe nga xam ne am lu dagan lu jafe-jafe-jafe la waaye mucc ci alal bu dagan tam lu jafe-jafe ndax yu bëri yu charia doon mooy tudd ko loo nit ñi pour ñu wute ci alal léegi dëkk bi légiféré nañ ko daganal nañ am ci alal ku ko am ci taggal loolu mooy bindu tey bi ñaan yàlla bu fay ñu fekkoon talaata yi yow incha allah yàlla yàlla may déglu salaamaaleykum